nekkoon euh, le 21 mai 2022 kon fukki at gannaaw bi Sénégal soobo euh, ci traque des biens mal ak acquis ñu war ko waxtaanee tey càmbar ko mais xool itam ñi fi jiitu président Macky Sall ban euh, jëfandiku la ñu jëfandikoo CREI di cour de répression de l'enrichissement illicite loolu yëpp nag ñu war ko waxtaanee natt itam traque bi ak lépp lu ci ajo ñu dalal ci ak mbégte mu rëy suñu doyen Mamadou Sy Albert ñëpp xam ko ci analyse yu pertinent yu leer machalla allah yu tëddee itam njaxanaay doyen ñu ngi lay nuyu am mbégte lool dalal la ci Demb ak Tay muy guléet ñu la ciy dalal ñu bàyyi la rek nga nuyoo ak ñi lay déglu. maa ngi lay fay Fatou maa ngi am mbégte ñëw jërëjëf jërëjëf ci wax bu rafet bi mm. maa ngi am mbégte ñëw waxtaan ci sa rajo bi kontaan naa ci. Mhm. jërëjëf euh, yow itam ci disponibilité bi alors doyen ni ma ko junjee euh, traque des biens mal acquis 21 mai 2012 la ko président Macky Sall annoncé woon lancement bi euh, yow ngay jàngat ci wàllu politique lu bari lan nga jàpp ne bés booba wala jamono joojo mu tolloon président Macky Sall lan moo ko xiiroon lan moo ko ërtaloon xëy na ba tax mu soobu ci traque des biens mal acquis. waaw mën nañu wax ba mu ñëwee ci nguur. Euh, moom Macky sal am na ñi mu àndaloon ñi mu àndaloon euh, muy parti socialiste muy AFP muy PIT parti yu bari yu bëri donc jàppale deuxième tour mu gagné euh, bi mu gañee nag Sénégal dafa tiitoon ci nguuru Abdoulaye wàdd ci benn fànn hmm. mooy ni ñu yore koom-koom réew mi nekkoon coow bu rëy bu rëy ci Abdoulaye Wade bi mu nekkee ci nguur gi Macky bi mu ñëwee euh, ñi ak ñi mu àndal coalition bi yëpp ñoom ñëpp dañu waxoon ne dañuy xeex euh, corruption dañuy xool xool euh, Abdoulaye Wade naka la yore woon réew mi koom-koom bi gouvernement bi am na aussi ah balaa Abdoulaye Wade sax di daan ci daan ñu bëri dañu doon yaakaar ne doomu Abdoulaye Wade ak ñeneen ñu ànd ak Abdoulaye Wade am na Euh, lu ñu lu ñu def ci bi ñu nekkee ci gouvernement bi que am na ñu luubal xaalis am na ñu sàcc coow li bari woon na bon loolu tax Macky Sall moom bu mu ñëwee ci ta tànk boobu la la jëlee nguur gi mu euh, indi euh, CREI yi CREI yi nag fii foofu la ko fekkoon Abdoulaye Wade foofu la ko fekk Abdou Diouf moo indi woon CREI yi bi nga xam ne moo waroon taxaw xeex corruption. Mm. donc Macky Sall daal dafa indi pour boobu taxawal moom tamit ay euh, euh, de procédure pour euh, jéem a def audit def enquête def rapport loolu yëpp moo indi moom tamit mu taxaw ci ci ci tànk boobu. Hmm. alors tudd nga léegi président Abdou Diouf est-ce que taxawaay bi ci président Macky Sall amoon noonee la ci président Abdou Diouf taxawee woon. CREI bi. jamono yi ñoo wuute. Hmm. ñoo wuute ndax euh, Abdou Diouf bu mu ñëwee ci nguur 1981 mu remplacé mooy euh, président Léopold Sédar Senghor. Hmm. Euh, Abdou Diouf moo indi CREI. Hmm. Abdou Diouf lu taxoon mu indi yi bi mu falo am na ñi nga xam ne àndoon nañu ak Senghor muy ñu ngi leen di doon wax ay baron. ñi nga xam ne ñoom ñoo sos nguuru euh, ànd ak Senghor 60 ba ba 2000 ba ba bi muy jóge ci nguur gi 1981 ñooñu baron yooyu la Abdou juf doon xeex hmm. ñi nga xam ne dañu jàppale woon euh, président Senghor ñoo yore woon euh, mairie yi ñoo ñoo yore woon nguur nguuru Senghor. te dañ ko doon bunduxataal moom. voilà ànduñu woon ak moom. d'accord. ñoom ñoom tànnuñu woon Abdou Diouf pour mu nekk président de la République. Hmm. dafa am PS dafa nguuru PS. dafa am dafa xaroon ñaar boo hmm. xoolee sax euh, même ñoom jiboka ñoom Niass. Hmm. peron yi la ñu gënoon jege ko Abdou Diouf. donc politique homme politique yi nga xam ne daal ñoo àndoon ci euh, nguuru Senghor. bëgguñu woon technocrate. ki nga xam ne administration rek la jàng administration rek la xam Senghor moo ko uuf. Euh, xale la wóoluñu ko woon aussi donc Abdou Diouf. xëy na itam nañu toog fi mu toog. ah ñoom kay suñ suñ sañoon Senghor tànn leen. voilà suñu sañoon Senghor tànn leen. parce que ñoom ñoo yore woon partie bi ñoo yore woon euh, pouvoir bi ñoo yore woon collectivité territoriale Abdou Diouf administrateur cote la woon. Hmm. am na ñu doon laam-laame sax du attan euh, amul expérience xale la day boo gisee sax Houphouët-Boigny ki nga xam ne xam na Sénégal bu baax xam na Afrique dafa bañoon Senghor tan Abdou Diouf au fait am na ñi nga xam ne bon ay PS la woon ay baron lañu ñu lu mu doon wax ànd nañ ci woon àndoon nañ ci xalaat boobu donc Abdou Diouf dafa jël nguur pour xeex pour ñi nga xam ne ànduñu ak moom euh, surtout aussi ñooñ ñoo amoon pouvoir économique bi hmm. ah njàgg nañ ci nguur ah, am nañu même temps Senghor sax commencé woon euh, commencé commencé na woon xeex euh, détournement deniers publics hmm. commencé xeex ñi nga xam ne ñoo àkkima woon Banque Sénégal hmm. détournement yu bëri yo ñoo amoon ci euh, avant Abdou Diouf di ñëw te baron yi ci ñooñu lañu bokk hmm. donc loolu tax Abdou Diouf moom tamit ba fu ñëwee ba mu ñëwee jë indi indi pexe créé créé alors euh, est-ce que euh, Abdou Diouf euh, traque boobu mu lancé woon ba créer CREI yi amoon na lumu jur ci réew mi recouvrement ak yow yaak yooyu yi ñuy xaar xëy na ci yi ñu doon xaar ci traque bi président Macky Sall déclenché. déedéet déedéet déedéet bu dee rek histoire politique parti socialiste. Hmm. corruption Abdou Diouf xaxu ko. dafa jël CREI yi tiital leen ñu bari ànd ak moom. comme ni mu demee tey rek ñu bëri daw làqu ji exactement ci ginnaawam exactement ku rangé wul daal dina la créel hmm. soo rangé nga nangu moom moo la jiite moo ànd ak Jean Collin moo ànd ak ak administ euh, technocrate yi mhm. euh, du la laal su fekkee xam ne nag yow àndoo ak moom ku yaa ngi fexel loolu euh, da da day def ay enquête day def ay audit mhm. créer yi menace politique la woon chantage la doon def. est-ce que am na ñu jotoon waaw am na ñi nga xam ne dañu détourné woon ci banque yi. am na ñi nga xam ne dañu détourné woon ci ONCAD ah jamono boobu soo soo gisee même croix rouge amoon na ay détournement hmm. bon def na def na def na quand ay enquête am na ñi nga xam ne te nañu leen mais yàggul mais amul quand même Abdou Diouf deful benn procès. Hmm. procès public. xam nga administration ni mu ko woon mhm. moom ci suuf la doon jaar. Hmm. c'est-à-dire am na inspection inspecteur les inspecteurs d'État. waaw IGE. am idée voilà am na cours de contrôle. Mhm. am na audit. te Abdou bi mu ñëwee réforme administration moo ko gënoon itte. Hmm. donc réforme bi mooy réforme administration. moom xam na ne que Euh, administratif civil la mais lu mu buggoon def mooy par exemple de politique d'ajustement structurel. Mhm. àndul woon ak corruption. d'accord. donc plus muy def réforme euh, administration bi même agriculture industrie. Mhm. ci suuf la doon def ay audit. d'accord. donc ci suuf ñoom ñoom surtout ci suuf lañ doon euh, négocier. Mhm. duñu du ñu jël nguur gi rek këpp ci euh, ci baron yi déedéet. Hmm. dañuy def enquête ñu xam ne yow lii jaar na yoon lii jaarul yoon euh, bu dee dañu administration aussi dafa am ay jumtuwaay. Hmm. ñi nga xam ne mën nga négocier ci suuf. Hmm. ah loolu loolu aussi Abdou Diouf loolu moo ko gënoon euh, yitteel bëggul woon te bon peut-être aussi ci am mayu ko woon. muy weer voilà buggul woon coow. Hmm. buggul woon coow dafa dal euh, xam na li mu bugg. mu ànd mu am administration bu baax. ñoo ko ñoo ko gunge bon ba mu soo gisee sax ñuy wax ci ci nguuru Abdou Diouf assainissement public. Hmm. des deniers publics Abdou Diouf quand def na def na lu rëy ci wàllu wàllu boobu parce que euh, FMI ak Banque mondiale ñoo ko jàppale aussi. d'accord waaw. kon ñàkkul xëy na am na ñu transiger ci suuf fay ndànk ñeneen ñi mu xëbal leen ñu ñëw. ah oui soo soo Fatou wax wax gisee Abdou mu toogee. Mhm. gis nga banque. Mhm. Eh, entreprise. Mhm. publique. Eh, coopération internationale. ay secteur ay secteur la def audit def assainissement hmm. donc ci suuf la jaar ah, administration bi euh, euh, ku mel ni euh, waa IGE hmm. époque Abdou Diouf bon ay ay ay ay mag ak mag ñoo nekkoon ci IGE hmm. xam ak les grands commis de l'État foofu la ñu génne ah ñu ñu ñu ñu teg aussi Abdou Diouf amoon na jumtukaay kaay bu bu rëy mooy euh, bureau organisation méthode sa ngor moo ko defoon mm-hmm. donc ñu nekkoon ci administration nekk des vrais technicien ñu ngi woon ci palais bi mm-hmm. donc ñooñu xam nañu fu ñu teg seen tànk ñoom ñoo ko dimbale en tout cas ba euh, mu def assainissement bi mm-hmm. ñu bari aussi ñu nekkoon ji nga xam ne détourné woon nañu euh, banque yi am na ñu ci tëj am ñu détourné woon ci grande institution comme Croix-Rouge même institution universitaire yi bon ñu bëri euh, dem nañ ci yoon euh, euh, mais amul woon en tout cas amul dégguma procès bi mu def hmm. deful procès politicien waaw. Mhm. looloo waral laaj bi sànq réformer ci ban sens kon dafa réformer ci sens su gën a ñoŋal yorin wi euh, ci suuf mu jëflante ak gars yi li muy jëflanteeg ñoom mais li wér mooy traque bi moom jurul woon dara. non jurul woon woon dara c'est euh, banque mondiale ci période boobu la indi bonne gouvernance d'accord bonne gouvernance bi maanaam euh, bu nekkee ci administration bi bu dee ci. Euh, institution politique gouvernement wala assemblée dañu dañuy teg des les cadres la ñuy teg hmm. donc bu fekkee yow da dañ lay limoger tout de suite hmm. donc amul amul amul xaar la sanction est immédiate bon même su dañuy dañu négocier dañu négocier sur le plan politique hmm. c'est-à-dire boo rallier PS nga ànd ak Abdou bon nga am nga am jàmm mais su fekkente da nga détourné quand même des milliards c'est surtout période boobu ñi nga xam ne détourné woon nañu ay milliards mm-hmm. ñooñu moom euh, jugé nañu leen ci suuf régler lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy régler Mm. alors naka la ko askan wi jëlee woon parce que président Macky Sall bi mu ñëwee track bi mi ngi ko teg ci ne demande sociale la est-ce que jamono bi président Abdou Diouf ñëwee engouement boobu amoon na ci xëy na ñu leeral alalu réew mi naka la ko yore woon est-ce que amoon na aussi dayop xëy na demande sociale. non non bokkul bokkul Abdou Abdou Diouf euh, bi mu ñëwee ci euh, ci euh, bu nekkee président. Euh, ñu ngi woon ci euh, ñu ngi woon ci politique d'ajustement hmm. cest à boo waxee politique d'ajustement dafa àndul ak détournement d'accord parce que politique yëpp da nga ànd ak FMI dafa da ànd ak euh, Banque mondiale hmm. soo xoolee sax Abdou Diouf ni mu liggéeyee ci wàllum économie wala administration Banque mondiale mooy mooy teg règle yi hmm. donc dafa am contrôle contrôle banque mondiale contrôle FMI amul fu mu mënti jaar bon léegi nag euh, boo xoolee makisal lu leen wutee mooy que politique bi moo moo mu moo moo ëpp doole. Hmm. da makisal dafa ñëw rek jàkkaarloo ak P PDS. Hmm. fayantoo la doon def ci sa gis-gis. ah loolu loolu loolu la gën a jege que que lutte contre la corruption. Hmm. fayantu euh, la parce que boo xoolee euh, bu dee politique rek la ñu wax ki nga xam ne te nañ ko jugé ko mooy Karim. Hmm. Karim nekkul woon premier ministre. Karim nekkul woon secrétaire général présidence. Karim nekkul woon autorité politique. donc fayu Abdoulaye Wade foofu la jaar ci doomam euh, bon ñëpp ñi nga xam ne waxoon nañu vingt cinq personnes lañu leen tuumaale mais kenn ci ñoom euh, mm. euh, demul ci procès mm. donc euh, vengeance bi daal moo gën a moo gën a sës alors que Abdou Diouf politique globale la mm. administration bi assemblée bi banque yi système économique bi réforme bu mag la Abdou Diouf bon d'ailleurs même soo xoolee ci mémoire am na lu mu ci regretté ah parce que dafa diisoon ci moom mu def ko mais li mu doon xaar gisu ko ah euh, donc euh, euh, Macky Sall ñi mu àndal dañ doon wax demande sociale juste pour defe naa daal politique bi moo ëpp doole ah alors que Abdou Diouf c'était une politique économique moo moo moo tendre lutte contre la corruption alors que fii ci ñoom Macky Euh, politique politicienne bi ëpp na ëpp na doole bon boo xoolee sax depuis 2012 ba tey jii problème li ñu amoon ci affaire gestion gouvernance les mêmes problèmes hmm. soo xoolee daaw ak euh, diggante daaw ak tey rek euh, scandale financier ñu ngi tegante hmm. ah na scandale financier économique bon loolu li muy firnde mooy que li mu waxoon en tout cas gisuñu ko gis ñu même sénégalais yi xam nañ ne que euh, ci dëgg-dëgg euh, xeex bi mu sumboon ci 2012 bon lu mu joxe bariwul bariwul lool lool. Mm-hmm. alors est-ce que amoon na itam euh, xëy na euh, dayoo bi mu amoon ci jamono yooyu jamono yu ñu toll bu ñu leen méngalee euh, li ma bëgg a wax mooy xëy na yóbbu nañ fi ay mission rogatoire ñu dem ba bitim réew dem vérifier ji jokkoo ci ak France ak yeneen i réew ak yeneen i réew est-ce que ci jamonoy Abdou Diouf itam yooyu procédure yëpp amoon na ci. non non non amul woon amul woon temps temps Abdou Diouf Euh, banque mondiale ak FMI euh, da da da dañu dañu gunge gouvernement bi dañu gunge Abdou Abdou Diouf donc ñooñu nekkuñu ci dem euh, lu ñuy waxee chasse aux sorciers hmm. jëluñu nguur gi pour dem xeex ci biti wala xool déedéet ñoom dañu teg seen règle seen règle de bonne gouvernance hmm. teg des systèmes ñi nga xam ne même les corps de contrôle euh, dañ dañ doon def seen liggéey mm-hmm. ah euh, donc euh, amul politique daal sësul woon ci période Abdou Diouf mm-hmm. lu gënoon sës mooy réforme bi ak fii boo xoolee 2012 doo gis réforme mm-hmm. amul réforme parce que même boo xoolee ab Euh, euh, pour te donner un exemple Macky depuis bi mu commencé yi coow coow lii mooy réformer CREI. Mhm. donc am na bi mu commencé la juriste yi politique yi. Mhm. Euh, défenseur droit de l'homme yi. droit de l'homme ne la nekku defal réforme bi. Mhm. du yi rek. defal réforme de justice. defal réforme administration defal réforme politique. bon mais bon bu ñu xoolee ci dëgg-dëgg deful benn réforme bi nga xam ne daal dina wone que taxaw na pour xeex euh, xeex euh, corruption. Mm-hmm. alors fukki at gannaaw bi ñu sooboo ci track bi ci jamonoy président Macky sàll yow tey boo ko doon natt lan ngay jàpp ni moom la ci Sénégal jële non mënuñu wax euh, que jëlewuñ ci dara c'est vrai mënuñu ko wax parce que. Euh, nekk na intention yéene la mhm. am na yéene moom euh, Macky Sall am na yéene xeex corruption wante politique bi mu taxawal li muy wone mooy que amul corruption ba nee naa la sànq euh, deux mille vingt deux mille vingt et un deux mille vingt deux kenn mënul lim scandale yu am mhm. te scandale yëpp corps de contrôle yi ñoo ko weere te rapport ñu ngi tegante mhm. ba tey ji gisuñu benn rapport daal ba président jël suivre ko yóbbu ko ci justice amul amul benn benn benn benn rapport soo xoolee ñi ñu tuumal aussi ci gouvernement euh, président Macky Sall ñu ko jege ay militants APR la ay militants euh, Benno Benno euh, euh, donc amul résultat amul amul vraiment résultat pourtant rapport yi a ngi fii Euh, pourtant sénégalais yi ñu ngi réclamer ñu ngi laaj justice mais président sax dem na ba wax ne moom euh, il a mis son coude sur certains dossiers donc hmm. loolu yëpp dafa woone ne que am na intention mais volonté politique bi moo manqué hmm. et et loolu euh, suñ koy analyser mooy que moom tamit buggul buggul alk partiam buggul alk benno buggul alk nguuram que xam na ne am na su tegoon tey ji rapport yi ci yoon jox ko justice mais ñu bari dinañu dem euh, dinañu wuyu justice loolu aussi def naa daal la bu des ci ci ci politique euh, politique bi mais aussi réforme bi hmm. c'est-à-dire corruption tey tey la gën a am doole hmm. ah, muy politique bi muy économie bi muy social bi muy culturel bi euh, mu même no corps de, de, de la, la, la justice de la justice la police la gendarmerie dafa dafa jéggi dayoo tey ji corruption donc loolu dafa laaj réforme il faut nga am nag euh, volonté politique euh, nga ñeme ah euh, phénomène bu àggee foofu dafa laaj nga am volonté politique nga am jumtuwaay mais aussi nga am une justice indépendante. Mm-hmm. soo gisee coow lu gën a bari ci gouvernement am euh, depuis Macky Sall bu mu ñëwee justice bi. Mhm. amu amuñu justice bu am doole bu am indépendance. bu mais est-ce que xew tey wute na ak li daan xew démb ak barki démb. non euh, wutewul parce que euh, suñu système nu mu tuddee mhm. euh, mooy système présidentialiste. Mm président de la république. muy Senghor muy Abdou Diouf muy Abdoulaye Wade muy Macky Sall dañu aakimoo euh, pouvoir exécutif pouvoir judiciaire pouvoir législatif même ci seen parti politique ñoom ñoo ko aakimoo. ñooy buur di bumi. mais kooku kooku su su fekkente yow euh, am nga pouvoir bu rëy noonu mais leen mënul dox tant que joxoon ndigal. Mm-hmm. loolu de de wute woon na ak temps. exemple euh, Abdou Diouf hmm. parce que euh, Banque mondiale ak FMI am na lu ñu doon bañ hmm. en dette bi dañ ko surveiller que mënoo dem rek nga leb pour pour leb déedéet da ngay leb ñu xam lu tax nga leb fan la xaalis bi di dugg naka lay jaare et cetera et ñoom tamit suñ leen lebal dañ lay poser ay conditions dafa am ay ay conditionnalité mais mais loolu c'est vrai que am na ba léegi wante euh, demewul nu mu doon demee mm-hmm. amul transparence mm-hmm. surtout euh, defe naa daal lu ñu lu lu gën a euh, li nga xam ne daal des na ci gouvernement Macky bi mooy transparence mm-hmm. ça nangu des corps de contrôle defal la des rapports rapports yi nga jox leen justice justice xool nu muy lijjante rapport yi def liggéeyam transparence daal Euh, bon problème c'est pas pour rien aussi que ba tey ji Sénégal jublan lañ ko xamee. Mhm. et loolu tant que mu ngi am esprit euh, euh, njublan esprit naxante diisoo ci suuf. bon de, non seulement suñu état bi du dem mais suñu koom-koom aussi du du mën a dem. Mm -hmm. alors euh, doyen sànq bi ma lay laaj ci track bi lan la jural Sénégal maa ngi bëgg a wax ci euh, lan la ci réew mi jëlee ci wàllu koom-koom sànq maa ngi lay tuddal ay euh, mission d'enquête mission rogatoire yoo xam ne yónni nañ leen ba bitim réew ñooña xaalis a leen fa yóbbu xaalis itam moo leen indiwaat ndax paas nañu fa ñu nekk séjourné nañ fa ak yeneen i dépense yu yu ci tegu te moo ne gisaguñu lu ñu takk teg ni lii moo tukkee ci track bi ña ngi koy def fii ak fee Karim Wade kott la ñu fi àtte te Karim Wade fayagul ba léegi euh, fay bi itam dafa nduru lu aju ci xëy na bu ñëwee bu bëggee ñibbisi fay bu ñibbisiwul nag mën naa toog foofa la mu war a fay it kenn dootu ci wax euh, ayda jong mi ñu fi waxoon ne euh, xëy na am na lu ñu gis ca moom jàpp ne alal gu lewut la topp ga moom wér na ni naax saay na alors est-ce que tey traque bi lañu ca dugal ëppul sax la mu jur bu dee am na lu mu jur mais lu luñ ci dépensé loolu lu rëy la loolu loolu sax day firnde que amul transparence mm. parce que normalement euh, tey ji Sénégalais yi waroon nañu xam euh, euh, affaire Karim Wade bi ñaata la leen jural mm-hmm. à part Aminata Touré daal de mas naa dégg muy wax ni que am na tel de chèque ak tel montant mm. mais gouvernement bi mësul wax lu mu ci am. Mm-hmm. amul communication officielle. amul communication officielle boo gisee bitim réew aussi lu ñu mobiliser fii comme avocat ak mhm. comme moyen mhm. Sénégal dépensé na lu rëy avocat yi sax mujj gi ñu ngi toppoon pour ñu fay leen pour ñu fay leen mhm. te léegi ba léegi ci suuf la ñu jaar kenn xamul ñaata lañ leen fay wala est-ce que ñu leen donc manque de transparence bi bay day firnde que volonté politique bi moo amul ci suñu buñ bu ñu buggee xeex corruption dafa laaj transparence que nit ñi xam Euh, ba même soo xoolee de de mujjantal affaire Karim bi dañ ko exilé mais kenn mënula wax tey jii ci PDS wala ci gouvernement bi mais lu tax ñu exilé ko moom laa la doon wax sànq ndax euh, euh, euh, wax nañ fi li ñu ko alamaan bi ñu ko àtteeg yëpp mais dafa mel ni après alamaan nga dafa aju ci bu toogee du fay bu bëggee ñibbisi nag day fay ndax bañ fi ne Karim day ñëw day ñëw ci la ñu xëy na yëkkatiwaat contrainte par corps ni bu ñëwee par force day fay bu fayul ñu delloowaat ko ci kaso bi kon dafa mel ni même alal googu nekk diggante bi bu dee am na xëy na dañ ko wékk rek ci bu bëggee ñëw ñu ñu daal di koy yëkkati mu mel ni épée ci ci boppam loola itam mbir mu doy waar la ah doy na waar parce que bon loolu mooy chantage. Mm-hmm. ah chantage et loolu euh, bon baaxul baaxul ci suñu démocratie parce que boo xoolee euh, état bi am na lu mu jël ci engagement euh, waa Qatar indi nañu fi seen ministre de la justice am na engagement buñ ñu jël. Mm-hmm. donc am na foofu secret d'état. Mm-hmm. et loolu. quand même c'est très très très dangereux que suñu état def euh, benn deal ak euh, Qatar ci bopp citoyen sénégalais hmm. loolu atteinte bu grave bu grave ci ci liberté individuelle pour Karim hmm. mais beneen bi mooy sénégalais man en tout cas ci suma su su may fàttelu Sénégal hmm. même temps Senghor musul nangu exiler citoyen citoyen sénégalais Euh, et loolu euh, le le comprendre naa société civile bi. Mm-hmm. Euh, lu muy wax quand même ba léegi nit ñi war nañ ci war nañ ci bàyyi xel. Mm-hmm. suñu état dafa war a protéger citoyen bi mais warul exiler c'est c'est très rare d'ailleurs que état à part nga am exil politique formel. Mm-hmm. bon loolu c'est c'est benn beneen problème la mais am na aussi transparence c'est-à-dire ñoom dañuy wax xaalis Karim sàcc mais fu muy mujj tey ji mooy PDS ñuy réclame révision du procès mm-hmm. ah et même loolu euh, soo xoolee bu baax a baax bon état bi waxul lu leer waaw mm-hmm. waxul lu leer que ñoom lu leen gënal mooy ñu amnistier Karim mm-hmm. ak Karim mu ngi réclame révision mais normalement sur le plan politique euh, état bi dafa war a jaakaarloo ak sénégalais wax nit ñi Euh, vraiment procès bi euh, naka la demee luñ ci dépensé euh, bu dee révision am amul transparence mm. et loolu day day yàq xel nit ñi mm-hmm. de de soo gisee ñuy wax d'ailleurs un état corrompu mooy mooy loolu mm-hmm. état bi il est corrompu parce que bëggul transparence bëggul nit ñi xam lu xew Euh, loolu bon euh, baaxul baaxul en suñu suñu démocratie. Mhm. alors doyen analyste politique nga bu weesoo wax ni yëf yi demee da ngay itam gëstu di xalaat ci ay mbir euh, mbiram traque bi surtout lu ñeel Karim Wade gannaaw moom dong lañu ci seppi yóbbu ci procès yow lan moo ciy sa conviction ban gëm-gëm nga am lan nga jàpp ni dëgg dëgg dëgg moo ci nekk. non règlement du compte la. règlement de règlement de compte gis nga gis nga bu dee da ngay xeex euh, corruption hmm. soo soo xoolee euh, France bii wala nga xool États-Unis hmm. nga nekk président la République wala nga nekk ministre hmm. sa dossier bu xasee ba dem justice justice code moo la ci mën a génne dépense boo mënti dem nga nekk président de la République nga nekk ministre dañu xam dépense bi li nga dépensé transparence bi elle est totale une fois que justice bi duggal loxam juge bi dina def enquête du début à la fin joxe sa décision. te moo ne ñun sunu lépp ñu ngi ko copier ci France euh, lan moo indi wuute bi ci ni ñaari yoon yiy doxe mais ñun dañu dañu bëri tàppale. Hmm. dañu bëri tàppale parce que ku jël nguur euh, nga nekk président ngay jore lépp xam nga kooku su su fekkente ne moom bëggul transparence du transparence du mës a am kon volonté la laaj mais volonté volonté politique la laaj hmm. du du volonté présidentielle hmm. du du du du du nit ki rek de système bi hmm. tant amuñu système bi nga xam ne dina xeex corruption su dee président bi kot lu mu bëgg mu def ko lu mu bañ mu mu tere ko lutte boobu mënul dem parce que day négocier waa kon eh, ay of nag ak yii ñu fi teg nii yëpp moom luy njariñ li mais am am nañ am nañ njëriñ sur le plan administratif su le plan institutionnel hmm. am na institution bu baax la mais suñu mënul liggéey suñu amul moyen su suñu defee seen rapport président sànni ko ci tiroiram bon an année yi di tegul ñu def les mêmes rapport hmm. mais mais loolu da ngay suufal sa institution et loolu président rek moo suufal président de la république c'est-à-dire que muy Abdou Diouf muy euh, Abdoulaye Wade muy Macky Sall ñoom ñëpp joxuñu institution seen àq euh, et loolu defe naa mooy volonté politique bi nga bi euh, nga wax et corruption c'est pas c'est pas du du du pour yóbbu nit ki ci kaso kaso dafa war a nekk exception ah. la règle mooy la liberté mm-hmm. et loolu su su fekkente ne yow euh, nit ki sàcc na mais le problème du yóbbu ko euh, prison déedéet le problème mooy mu rembourser la mhm. su la su nga nga nga yee sa askan nga yee administration mhm. mais ñun malheureusement euh, bon chantage la la ñu def wala ñu tuumal nit ki wala ñu yóbbu la prison pour euh, pour euh, pour pour yàq sa carrière politique. Mm-hmm. ñun yàq bi moo moo gën a ëpp doole que defar bi. Mm-hmm. que récupérer alalu askan bi. alors que mais la lutte anticorruption da nga da nga bëgg a tabax. Mm-hmm. da da nga bëgg nit ñi am des valeurs de de référence da nga bëgg nit ñi am am am des pratiques euh, saines. Euh, da bëgg a sàmm sa sa sa sa askan. et tant que gisuñu lutte contre la corruption comme une stratégie. bon loolu mooy indi problème réglement de kon par exemple sànq ñu ngi doon wax les vingt cinq ñi nga xam ne tout dañ ne waxoon ne ñu ngi ci liste bi waaw ñoom Omar Sarr ak ñëpp ci la ñu bokkoon mais ñoom ñëpp dem nañ ci Macky Sall hmm. comme ni mu demee woon ci jamonoy président Abdou Diouf mais exactement mm. loolu dafay dafay indi crise morale bu rëy hmm. ah soo soo gisee ñu àgg tey ji trans transhumance mu àgg fu mu àgg mais transhumance dara lalu ko lu dul euh, nangu euh, ñu fooye alalu alalu askan bi mm-hmm. que que que damay dem seeti xaalis su ma amee ma dem ci président mm-hmm. ma lax ci ci gannaaw président wala ma détourné ñu bugg ma yóbbu prison ma ma ma ñi ma àndaloon mais loolu c'est c'est pire c'est pire que la la lutte contre la la la corruption parce mm-hmm. que euh, morale nit ñi ngay sàppe mais est euh, jàpp nga ni euh, euh, président Macky Sall ba muy door track bi ba mu koy annoncé au mois de mai 2012 amoon na yéene xëy na recouvrer alalu réew mi jotaat ci li mu jàpp ne dañ ko luubal wala rek da nga jàpp ne dañ doon xëbalaate wala politiquement daal am na ñu ñu bëggoon récupérer xëy na noppiloo leen wala bañ ñu xatal leen parce que moom par exemple Abdoulaye bi muy dem wax na ni naka libéraux yi jàppale ba mu taxaw ñaanal ko buntu pale loolu ndax da koo doyul ba xëy na mu ragal ñeneen ñi daal euh, xajamal euh, liggéeyam ba tax mu mu def noonu bi ñuy jëli par exemple Ousmane Ngom ba euh, Ziguinchor nit ñi quand yaakaaroon nañ ni lii moom lu sérieux la parce que bañ koy indi keroog tribunal ñoo ngi mm. buntu brigade des affaires générales bag ni yëf yi demee dafay mel ni daal lii moom lu sérieux la amoon nañu conviction que ni affaire bi moom luy dem la mais diggante bi daal lan nga jàpp ne xëy na moo ciy dox wala ndax président Sall moo moo doon kii rek euh, wala amoon na vraiment yéene bi daal foofu moom bëgg naa nga nga leeralal ñu ci ci ci sa xam-xam politiquement. non bu dee bu dee euh, de euh, Macky Sall. Hmm. moo ko formé. Macky nekk na ministre nekk na président de l'Assemblée nekk na premier ministre hmm. xam na rouage état yëpp comme Abdou hmm. ak avantage beneen bi am xam na société sénégalaise sénégalais la euh, ci ci ci euh, xam na dundinu Sénégal. fi la juddoo fi la màggee waaw. fi la màggee mësul jàng bitim réew. Mm-hmm. donc loolu kooku euh, xam na xam xam na lu nekk ci lutte contre la corruption. léegi nag mu ànd ak xam ne mooy mooy Tanor muy Moustapha Niass mais ñooñu aussi xam nañu ah ñoom ñu bokkoon nañ ci gouvernement Abdou Diouf bokkoon nañ ci gouvernement sengoor donc ñoom ñëpp xam nañu. Euh, corruption Moustapha Niasse jotoon na ànd ak Ablaye Wade. voilà ñoom ñëpp donc xamoon nañu corruption plaie la gangrène la. Hmm. loolu tax pour man euh, dañ ko utiliser comme arme politique contre ab lay Wade. kon jàppoo ne amoon na yéenay setal. ci bi muy somb traque bi franchement bu dee bu dee dëgg la ñuy wax. Hmm. Euh, yéene am na. mais volonté politique su feeñul ci sa jëf-jëf ak li ngay jëfee nguur euh, loolu su su méngoowul daal xamal ne euh, intention kot nga am hmm. ah, euh, bu ñu bu fekkant nga nekk ci bopp réew hmm. fukki at ah gis ñu benn acte bi nga def di wone nekk yow danga nga li nga doon wax bon loolu lu muy firnde mooy que arme politique lañ ko def ba léegi arme politique la la lay nekk parce que boo xoolee par exemple transhumance yëpp ñëpp dégg nañu a ah, Sall balaa muy falu lu mu doon wax ci transhumance hmm. tey ji boo xoolee nguuram mais exactement comme Abdoulaye Wade hmm. tout ñi nga xam ne ñuy ci ci gannaawam à part APR ñeneen ñi ñëpp ay transhumants lañu Mhm. Euh, donc euh, euh, li ma ci jàngaat daal mooy que Macky poli politicien la. Mhm. kon la doon am yëpp daal cinéma lañ ko mën a jàppee. <laughs> bu dee mën naa ko waxee noonu. effort yi ci def ak mobilisation bi ci amoon yëpp. finalement dafa mel ni kon dañ doon jouer film daal. dañ doon jouer film avec beaucoup beaucoup de subtilité. Mhm. gis nga Macky Sall personnalité am. jege na lool lool lool personnalité Abdou hmm. dañu dañu noppi dañu yaru mais li ñuy def <laughs> bari affaire ah ils sont très subtils. Mhm. man man la wax euh, tout de suite nga ànd ci mais lu la ci fekk bon c'est des politique mhm. xam nañu xam nañu ils sont euh, ils font des calculs froids. Hmm. ah dara mënu leen yëngal Abdou Diouf dara mënu ko yëngal su buggee tëj Ablaye Wade su su buggee Ablaye Wade dugg dara mënu ko yëngal daf koy jëli mhm. Macky Sall c'est pareil ah bu buggee déstabiliser PDS daf koy mhm. déstabiliser jusqu'au bout mhm. su buggee wax ak Ablaye Wade dina débrouiller wax ak Ablaye Wade c'est la même chose pour les transhumants donc ñoom ils sont très subtils euh, am nañu expérience xam nañu politique bu baax a baax bon dañuy utiliser politique pour am euh, pour am nit ñi. yaakaaroo itam ne dafa commencé xëy na ba mu yàgg ak yéen bu rafet pression yu ñëw ndax Sénégal aussi ku nekk xam na ni muy doxee nit day def lu ne weng mais après ñeneen ñëw ñaan njekk parce que suñu société noonu la bindoo loola itam yaakaaroo ne mi ngi ci biir. si si non loolu loolu am na. loolu am na hmm. parce que boo gisee ka Karim Wade bon. Euh, euh, xalif yi wax nañ ci nit dini yi wax nañu nit aada yi wax nañ ci mm-hmm. bon même bu dee les vingt cinq la xam naa ne euh, ñooñu ja am na luñ daar ci suuf mm-hmm. bon boo gisee ab Macky Sall bi mu ñëwee ba tey jii am na tànk bu muy dem ci ci nitu diine yi mm-hmm. am na am na comportement bi nga xam ne bo day wut masla bon wante nag côté politicien bi defe naa euh, moom moo moom moo dab Macky hmm. xam nga xam nga euh, nguur soo ci soo buggee des ci nguur préserver ce pouvoir foo jaar nga négocier Sénégal yi loolu moo tax hmm. euh, comme ni nga ko waxee hmm. ku bugg falu xam na ni fu mu jaar il faut mu négocier soo faloo ba pare soo buggee des il faut nga négocier donc loolu moo tax que ñun Euh, mën nañu wax en tout cas euh, génération yii nii euh, wuute nañu lool ak génération yu passées par exemple su ma jëlee rek exemple Cheikh Anta ak Senghor. Mhm. Cheikh Anta musul négocier dara. Hmm. ak Senghor. ci wàllum conviction. d'accord Mamadou Dia naka noonu. Mhm. mais depuis ah euh, génération politique yu ñu am. Hmm. Euh, demewul noonu. lan moo waral wuute googu ci sa xalaat. dañu amul conviction. Hmm. dañ de de de dafa dem jàngi gëstu ne man lii laa bëgg comme projet de société. lii laa gëm. lii laa gëm. Hmm. lii mooy suma bale fi nii laay demee. mais ki nga xam ne moom sos na parti de deux mille wala avant deux mille sax ba tey ji mhm. yow li ngay wot li ngay euh, seet mooy am poste mhm. mais bon amoo conviction da nga est-ce que itam boobu xaalis ni muy circuler tey ci politique noonu la daan demee jamono ñoom Cheikh Anta ah non non non mhm. loolu loolu tax euh, vraiment nañu attirer attention cest à corruption lu koy indi mooy manque de conviction muy Cheikh Anta muy Modou Dia muy ñeneen meneen même Ablaye Wade soo jëlee Ablaye Wade toog na fii xeex vingt ans mm-hmm. su su demoon nekk ci gannaaw PS day am lu day am xaalis mais dafa bañ même si mus na dugg ci gouvernement d'ouverture après mu génnaat mais la bonne preuve même bu duggee ci gouvernement bi du am post ministériel mm-hmm. xam na xam na lu tax mu dem waaw xam na li nga xam ne lii bu ci duggee du ci génn mm-hmm. Euh, donc même soo xoolee ci exemple Ablaye Wade tey jii chef de parti bu jege Macky Sall dafa bëgg a nekk ministre. Hmm. alors que pourtant mën nañ liggéey mënoon nañu liggéey ak Macky Sall sans ñu nekk ministre sans ñu nekk conseiller de Macky Sall mais bu ñu bokkoon gëm-gëm. donc pourtant dañ naan dañoo bëgg a ci servir réew mi de bu ñuy dem. non ñoom seen seen bopp lañu bëgg a servir franchement ku bëgg a servir réew mi euh, da ngay am projet. da ngay am projet su fekkente ne yow décider nga ànd ak nguur dafay fekk nguur bi euh, nguur bi ngay àndal am na lu muy tibb lu muy tibb ci sa projet hmm. même bu dee lu lu néew xam nga au moins que yow soo demee loolu ngay liggéey hmm. loolu loolu mooy politique soo hmm. xoolee même bitim réew par exemple pour waxu waxu France mais euh, Macron te ji moom am sax parti am na ñi mu mais képp koo gis ànd dafay d'accord ak moom au moins sur deux ou trois questions mm-hmm. man damay ñëw pour def lii li nga xam ne gëm naa ko d'accord nañ ci. Mm-hmm. ñu jox la ay moyens ñu jox la ay moyens mais Sénégal doo doo gis loolu ku nekk day ñëw chef de partie Macky Sall euh, jox la de poste ministériel nga toog. Mm-hmm. mais fekk yow gëm gëmoo gëmoo poste xamoo sax post bi de naka lañ koy liggéey xamoo ministère bi. amoo expérience amoo benn projet mais kooku soo soo soo demee dara taxuloo dem si sinon defar sa affaire mm-hmm. mais du du du du se part loolu day day gën a rëy euh, suñu démocratie mm. parce que démocratie lu koy dundal dundal mooy projet de société bi mm-hmm. defe naa loolu moom Euh, génération yu euh, génération yi di ñëw hmm. suñu buggee dëgg-dëgg defaraat il faut ñu dellu ci conviction ñu dellu ci projet de société hmm. ñu dellu ci ci valeur hmm. euh, parce que nit ki aussi gëm-gëmam rek su fekkente yow gëm xaalis rek nga gëm bon xaalis nag c'est vrai c'est c'est triste à dire mais xaalis mën na la yóbbu fu fu nekk mën nga jaay sa bopp pour juste avoir li nga li alors euh, kañ la yàqu-yàqu bi commencé que nee nga am na génération boo xam ne jàpp nañu ne wuute na ak bii fi nekk muy ñoom Cheikh Anta Diop ak euh, Mamadou Dia ak ñoom ñooñu mais kañ la yëf yi yàqu dëgg-dëgg ci sa xalaat. Ah, bu ñuy xool bu ñuy xool suñu histoire euh, fi mu commencé yàq dëgg fi mu commencé yàq en tout cas sur le plan de l'histoire hmm. mooy. Euh, après 68. Hmm. gis nga 60 ba 68. Hmm. Euh, ñu nangu wala ñu bañ ko nangu. Senghor amoon na conviction ak projet. Hmm. amoo amoo benn secteur euh, booy lamb ci Sénégal fekk amul amul orientation. muy administration bi muy économie bi muy système éducatif santé amoon na projet. mais à partir de 68 la ñu commencé contester projet Senghor. Hmm. ah de de soo gisee sax parti yu bëri foofu la ñu jógee ñu sos leen ah muy BPI yi 57 après 68 nga am les LD AJ et cetera et cetera foofu la ñu commencé euh, tasaaro Sénégal élite bi la commencé tasaaro. d'accord et euh, lu tax mu accélérer affaire bi mooy dafa réprimer Mm-hmm. si mai 68 bi. ci mai 68 bi. Mm-hmm. dafa réprimer bi mu commencé réprimer réprimer réprimer 70 quinze bon comme affaire bi di gën a law ñoom Cheikh ñëw. Mm-hmm. ñoom Mamadou Dia bi gën yaatu. gën a yaatu. donc suñu suñu suñu état commencé commencé faiblir. et Senghor même autorité bi mu amoon wàññeek bu baax a baax. muy intellectuels yi syndicats yi élèves yi ñëpp commencé bañ sengoor est-ce que loolu bokkul si li ko tax a nguur gi. loolu ci la parce que parce que quand même bon euh, c'est un intellectuel bu rëy la mm-hmm. ah xam na xam na xam na xam na xam na mouvement d'idées xam na xam na que mu tolloon soixante huit ba soixante dix soixante quinze euh, Sénégal melu mu ngi koy mu ngi koy rëcc Ah, am na ay mouvement yu bari mu am résistance moom moom xam na lool bon ñaareel bi lu ko tax euh, dem pour man di ci dëgg-dëgg euh, gis nga moom dafa amoon euh, gëm-gëm ci projet de société bu mu séentoo politique d'ajustement mu ngi ñëw xam na ne politique d'ajustement dina yàq lu bari li mu tabaxoon muy muy éducation bi muy santé bi muy économie muy privatisation mësul gëm loolu Senghor xam na fu Sénégal fu mu jëm xam na Afrique fu mu jëm yi nga xam ne toute sa vie dafa dénoncer détérioration des termes de l'échange bon bu mu gisee loolu euh, amatul woon dara lu muy xaar ci ci ci ci euh, ci France amatul woon dara lu muy xaar ci Banque mondiale ak FMI parce que xam na loolu lan la naroon jur bon euh, def naa daal euh, opposition am c'est un socialiste hmm. alors que l'ajustement euh, va saper toutes les bases du système socialiste à, hmm. commencé par l'État par le parti par l'administration euh, donc Senghor xamoon na fu mu jëm moom demul demul foofu donc mu mu retiré mais soo gisee bi mu retiré aussi foofu aussi le problème Sénégal gën a grave mm-hmm. parce que depuis bi mu demee ba tey ji euh, en tout cas am gisaguma euh, euh, solution sur les grands problèmes du Sénégal. problème kay dañoo mel ni sax lu gën a yokk. waaw day gën a yokk. Mm-hmm. et nguur gi gën a faible. buñ doon xale tey magum jëmm lañ problème yooyu. voilà mm-hmm. donc donc retrait Senghor bi mën nañ ci jàng quand même lu lu bari bokk na ci euh, problème bi li ko gën a euh, suuxat no parce que bi mu demee <laughs> c'est Abdou Diouf ñëw na Wade ñëw na Macky Sall mu ngi nii mm-hmm. mais par exemple soo xoolee te ji lu problème de la jeunesse jeunesse bu bu nekkoon ci 68 lu mu doon jooy ñii ñii gën a jooy mm-hmm. ah soo gisee travailleur yu ñu doon jooy Dakar 68 dafa euh, toog presque une semaine. Mhm. à feu et à sang. Mhm. travailleurs yi taxaw mais tey jii boo xooloon travailleurs yi bon les problèmes des travailleurs son sont énormes euh, donc euh, en tout cas suñu suñu suñ ci buggee génn. Mhm. defe naa laaj na ñu dellu ci Senghor. ñu ñu xool lan la mën a jël ci moom. Euh, pour ñu ñu jàngaat suñu euh, suñu jamono xol a naka la ñuy fexe ba ñu Sénégal dem en tout cas ce qui est sûr que force Senghor moo doon Sénégal yi dañu booloo am projet et li defe naa suñu buggee dem euh, il faut Sénégal boolo mais en projet d'accord su suñu boolowul amuñu projet moom dañu gën a dañu gën a tasaaroo rek mm-hmm. alors politique kañ la ko xaalis tàmbalee yàq parce que man am na mag mu ma mës a seedeel un sage du parti socialiste bu ma mës a wax ni Senghor euh, ñoom mës nañoo dajeek moom maison du parti euh, am daal lu ñu doon def waaye joxu leen lu ëpp cent mille francs te ci poche am la ko jëlee alors que tey leneen ngay dégg ci wàllu politique même bu dul président Macky Sall yeneen ak yeneen aussi dégg nañu ko fi alors kañ la boobu jafe-jafe tàmbali est-ce que président Senghor dem na ba mu yàgg mu soppi doxalin euh, wala dee jamono yooyu eh, ci nga gën a daal eh, xam dëgg-dëgg dëgg ni politique bi daan doxee mais moom kañ la tàmbalee eh, xëy na yàqoo ci xaalis. ah def naa du ci du ci jamono Senghor jamono jamono Senghor moom. Mhm. su su ma xoolee daal ñi nga xam ne jege nañu Senghor. Mhm. ñoom ñëpp dañu rampe. Mhm. Ah, amul amul kenn am amul kenn ah, ah suma jumee nga baal ma mhm. mais euh, bi mu faloo am cabinet am euh, gisuma benn cadre sénégalais jóge bitim réew rek ñu dugg ci Senghor mhm. euh, da da rampe ñoom Djibuka ñoom Niass ñoom Abdou ñeneen ak ñeneen ñoom ñëpp ñoom ñëpp am na fu ñu jaar ak moom par l'expérience mhm. te ñooñu Euh, jamono Senghor euh, en tout cas jusqu'à son départ euh, xaalis bariwul woon coow ci PS mhm. ah luñ luñ doon coow mooy leadership leadership nga am xam-xam nga am expérience mhm. nga am capacité nga am base mhm. loolu moo doon projet de société de Senghor képp koo xam ne yow mu PS Euh, wala même UP temps UPS euh, il faut nga am formation bu dëgër mhm. muy ci privé bi muy ci administration bi muy à l'étranger ça moom c'était la clé mhm. bon maintenant Abdou Diouf bi mu ñëwee euh, les technocrates là am na ñu ci amoon xaalis mhm. am na ñu ci amoon Abdou Diouf xamul xaalis d'accord ah administration nekk ci gannaaw Senghor préparer Euh, son profil euh, politique. Hmm. mais amul amul ñi ngi koy jege muy distribuer xaalis. d'accord ah, pour nga bu ñu commencer distribuer redistribuer xaalis sax. Hmm. peut-être peut-être ci Ousmane Tanor Dieng la commencé. Hmm. en tant que personne la plus proche parce que boo xoolee temps Jean Collin. amul xaalis. d'accord Jean Collin du joxe dégguma dem muy joxe ay xaalis. mais wante. en termes d'organisation, discipline, contrôle, mm -hmm. ça, Jean Collin savait le faire. Mm Mais à partir de la venue de Ousmane Tanor, et surtout, moo am problème diggante Abdou ak Jean Collin. Mm. Jean Collin génn. période boobu nag euh, les années quatre-vingt-dix. waaw mhm. ah, commencé nañu woon génne ci politique d'ajustement bi. Mhm. foofu la xaalis bi commencé euh, génn hmm. ah, parce que euh, Abdou Diouf toog na defar na PS defar na administration bi hmm. euh, bon am nañu des des des des cadres ci période boobu dans les années quatre vingt dix quatre vingt lañu ñu commencé dugg ci xaalis hmm. ah yi seen période Senghor amul woon tellement problème de xaalis. Mm-hmm. ñoom dañu amoon surtout dañu jege woon askan bi. Mm-hmm. influence lañ lañu amoon. mais par contre à partir de Abdou Diouf les années quatre vingt dix. Mm-hmm. Euh, amatul woon baron. e cadre yi ñoo ñoo commencé remplacer baron yi et cadre yi am nañu xaalis. ah loolu ñoom ñoo commencé clientélisme. d'accord. Eh, eh, eh, bu ñu bu ñu duggee ci clientélisme mm-hmm. la xaalis commencé daw ci ci PS mm-hmm. que du ñu xool yow est-ce que am nga influence wala am nga base mais li ñu gën a xool mooy est-ce que am nga moyen financier mm-hmm. et loolu PS fonctionné na fonctionné noonu wante bu dee rek dañu xool xaalis influence bu mu am ci politique c'est bizarrement c'est à partir des alternances de 2000. Hmm. jamonoy président Wade. jamono président Wade. Hmm. c'est-à-dire ki nga xamoon ne moom euh, soppi la doon woote. Hmm. moom moo moom moo moom moo yàq politique bi. xaalis commencé dugg. la la la ci Ablaye Wade rek la ñu dégg euh, responsable milliardaire. en temps PS moom euh, ñemewuñ woon sax wax waxu waxu millionnaire <laughs> ah, alors millionnaire sax uh-huh. président Wade justement moom laa la doon bëgg a laaj euh, créé yi président Abdou moo ko créé président Macky Sall ñëw dekkalaat ko mais lan moo tax président Ablaye Wade li mu fi toog ba jug fi yëkkatiwul cré yi deful track donte bi muy doog a ñëw annoncé woon nañu aussi une chasse aux sorcières mais après ñu tegaat ko ci suuf lan nga jàpp ni moo waral defu ko ah defe naa gëm-gëm Wade Wade gëmul CREI Wade gëmul gëmul CREI eh, xam na xam na xam na eh, problème eh, Abdou Diouf problème bi mu am ak CREI Wade Wade ku jege woon institution yi expert la consultant la xam na bi li mu jur ci loxo Abdou Diouf bariwul tellement arme politique la woon te euh, Abdoulaye Wade ci conviction am euh, naa moom dafa gëm liberté ah waxul dara ci prison par par son expérience. xam na ne avocat la aussi nitu yoon la. Mm. voilà nitu la. Mm. nekk aussi un consultant des grandes institutions africaines. Mm. Euh, nekk bon quelqu'un de très proche des luttes de libération. donc xam na ni moom li gëm mooy liberté. maintenant prison c'est exceptionnel. soo gisee sax euh, affaire am ak Idrissa Seck euh, euh, coow li bari woon la mais def ci génn. Hmm. donc Abdoulaye Wade libéral la. Hmm. libéral la démocrate la ci ci conviction bi. bon moom gëmul tellement prison comme solution. Hmm. ah c'est defe loolu moo tax. Euh, moom il n'était pas vraiment chaud sur l'histoire de de de de cré de hmm. parce que xam na aussi fu mu mujj. Hmm. xam na par par expérience. xam na hmm. xam na que ah, Abdou Diouf a échoué. que que moom mënul toog fii di yóbbu prison fekk du am benn xaalis. du ko indil dara. Ah, su xamoon ne dina ko indil dara <laughs> wala dina ko def. mais mais xam na ne ko. xam euh, bon c'est plus une arme politique mm-hmm. euh, boo gisee sax euh, expérience Abdoulaye Wade dafa toog deux mille deux mille un mille deux mu dem réforme constitutionnelle mm-hmm. ah, réforme constitutionnelle soo ko xoolee nga xam ne c'est plutôt la liberté qui intéresse Abdoulaye Wade mm-hmm. ah, les les marches daf légaliser def ko ci constitution bi Euh, les coalitions euh, même moom moo formaliser juridiquement la coalition comme entité. Mhm. Euh, donc il il n'est pas répressif Abdoulaye Wade. Mhm. contrairement à Abdou et Macky Sall. Mhm. soo soo xoolee beneen similitude Macky Sall Abdou c'est vraiment le l'état dur. ah le Abdou Diouf li mu réprimer PDS Abdou euh, Macky mu réprimer PDS ak opposition euh, bon. sorewuñu euh, non même même la démarche de la CREI sorewuñu. Mhm. donc am na am na lu ñu li nga xam ne bon. ñoom ñaar dañu dañu jege dañu jege dans la même dans la conduite de l'État mhm. am na am na am na am na am na li nga xam ne Euh, on trouve ça chez Abdou Diouf, on trouve ça chez Macky jërëjëf doyen yaakaar naa ne waxtaan bi moom euh, gindi na ñu bari ci euh, ni état bu Sénégal di doxee mais surtout li ñu naan traque des biens mal acquis fàttali ne li lay taayaloon waxtaan wi mooy ñaar fukki fan ak benn weeru mais atum 2012 ci la président Macky Sall waxoon ne day def euh, traque des biens mal acquis topp alal ji mu jàpp ne nanu ko amee lewul fukki at gannaaw loola ñu ko doon càmbaar ak yow Mamadou Sy Albert amoon mbégte lool dalal la ci démb ak tey di la gërëm bu baax a baax si waxtaan bi ak leeral yi nga ñu si indil yëpp.